mënu ko wala 2007 keroog bi nga toogee nettali tukki Cheikhul Khadim bi. tukki bi da ca am ñoo xam ne dañu dese comprendre. am ñu ni bi nga ko nettalee àggul waaye ci biir tukki bi sëriñ bi muy dem daf fi bàyyi njabootam. booba ci zahir ñuy ay tuut tànk bu Seyd Mouhamadul Moustapha Seyd Mouhamadul Fadilu ak sëriñ Baara. Mhm. def naa ñoom ñett la fi bàyyi woon. Mhm. ci tukkeem ba moom sëriñ bi ak yoonu tukki ba moom sëriñ bi ak bi mu demee njabootam gi fi desoon yaakaar naa loolu mooy dernière question bi nga xam ni téléspectateurs yeeg ñu baree baree bari ñooy laaj bëgg a comprendre dëkk dëgg tukki Seexul Xadim boobu. Euh, jërëjëf maa ngi sant soxna Faty Kiné mm-hmm. moom it euh, wax dëgg yàlla at mu jot. ñi mm-hmm. ngeen ko waxee rek. Mm-hmm. Euh, teraanga yi noonu la koy. andee fi ngir jëmmi ku tedd ki Serigne Touba. Mhm. yal na ko yàlla gën a dëgëral. yal na ko yàlla gën a fay. kàttanal ko mot li yéeneem ndax jëf ju baax la. Mhm. ñi am yéene yëpp ñoom it yàlla suñu borom fay leen. amiin euh, taxawal leen. amiin ndax taalibe yi sëñ. Euh, Pape Cheikh. dañoo am yéene ci sëñ bi. Mhm. ba buñ ko tuddee ci jataay wala ñu woote ca. Mhm. kenn ku ne am nu mu ca taxawee. Mhm. loolu tax na ba waxtu wu ne ñuy wane seen yéene. ñoo ngi leen di jaajëfal baax la fi yónnee mbooloo moo xam ne mbuur lañ jógee. ñëw bokk fii ci jataay bi. ak ak sa xarit Jaw Imo. Jaw Imo waaw Jaw Imo moom sët la xam nga moom it ci mu doon tuddee Cheikh Mahamadou Lamine Baara mooy maamam. ndax sëñ Mourou Baara moo jur yaayam. moom Jaw Imo tax teewul mu jaay loola di liggéey ngir góorgóorlu ah, ah. ak taxawaay bu réy boobu maam ab sang la waaye waaye biir la moom moom jaw imo ah. moo ko cubb moom jërëjëf sëñ Pape li nga wax tukki bi mhm. mooy liggéey boo xam ne yàllay kese rek a taxoon sëñ bi di ko def dafa wax Cheikh Mouhamadul Bachir na ko inna sab'a sinina lati makastuha fii Congo ma daat sa yësaru yow ma tubla sarair sama juróom-ñaari at yi ma def ci géej gi du réer mukk bis penc lay feeñ mhm. ndax bi may jaamu yàlla naxuma ko bu ma yàlla fay du ma nax waaye adduna du kërug pay mbir ma ëllëg la yomal xiyaam loolu la sëñ Tuubaa sëriñ Bachir muy muy liggéey boo xam ne wax nga ko léegi ci kaw tuuma ak i tooñ rek lañ ko teg mhm. zalamani man axrajuni min duyur ba xayri xaqi ruddani maal xuyur mhm. génne koy këram tàggale kooku njabootam mu ne sama kër yi gent na tàggoo naa sama njaboot gi li ma ko yóbbee tàgg rasulullah soxna Fat Jamoo di taw booba soxna Mariama Kunta ak Cheikh Ahmad Lamine Baara ñoo maase Sidi Mouhamad Cheikh mm-hmm. mu bàyyi fi ñii ñëpp na xusuur yi xàllat wal ahlu an ni tafaaraxat li madaxi ladi anhul madi wa qasiru sama kër yëpp a gent ma tàggoog sama njaboot toll ci ñeent fukki at ñu boole koog noonu yoo xam ne ak coxor ak weñs ak dëgër ak bëgg a faagaagal diine ak bëgg ko fay jël rek seen yitte kere bi ñu ko yóbbu ci géej gi mu bàyyi fi njaboot gi kere bi muy jaar fii ci waax bi waxuñu ko fu mu jëm gabon lañ ko waroon yóbbu waaye Conakry la sëñ Tuubaa yéegee na gabon la jëm dem na ba am 15 jours ñi mu fi bàyyi doo a xam fu ko yóbbu nga xam ne amul ku mu àndal amul ku koy ngabali gaalam gaalu géej goo gis benn nopp layam la muy diis diis sëñ bee koy gàddul boppam moo koy gàddul boppam gaalam yooyu dem ci tukki ba yàgg fa lool njaboot gi tawat Cheikh Mamadou Moustapha tawat Cheikh Abdoul Fadal tawat Cheikh Amadou Lamine Baara tawat maam Thierno borom daaru keroog la ca guy nguraan dafa sànni deram ñaan yàlla na ko sama kilifa gu baax gi dem bu na reen di si ma ko laaxan njaboot gi naa ñàkk bakkan bakkanu mu daaw balle mii maam baa ma ñàkk bakkanu sama ndey soxna fay di sa baa man Thierno ma joxe sama bakkanu wute ko tawat jooje moo def jeexintal ci Cheikh Mahamadou Lamine Bara Khadimu Rasul ba ba mu tollee ci war a jàng jàngal ko jafe ba mu tollee ci mën a dégg dégg jafe waaye sëñ Bara waaye dégg nga la waxal boppam haddayta nii yaa hadiyan allamta nii saqayta nii ka sa safa rabbayta nii allamta nii min ladunka ilma hmm. yaqinil ada wa shakka allahu akbar bi mu daataan feeñ jamono way juróom génn àdduna soxna mi tëlloo bi mu feeñee jamono juróom benn weer juróom ñaar sëñ way juróom génn àdduna mooy soxna Aminata Lo moom sëñ Baara moom sëñ Baara bi mu tollee ci ñeenti at sëñ bi dalal ko jàng dem ci tukki bi tawat dal ko lépp di tuumaranke ci moom waaye ah. demal na boppam ba yàgg mu ne xat baana lil xalqi maa ninnaahu min sharafin man yatinaa yëf yu anaaran wa asraran hmm. waman kaana muridan min talaay misina kafaa rabbul anaa maara wa naar ku ñëw fi moom na duyal la ñaari andaar mbootum yàlla ak leereen daana man Mouhamadou Lamine ku doon sama taalibe hmm. doo dem sawara doo am gàcc toll sëñ Tuubaa da ko bindal diplôme bu leer faxlam yaa Mouhamadou Lamine satanaalu maqaam fi jami am salik wa anna jami lasi maaka laa yarawna fi dunia wala axira illa ma yasur wa yanfuhum annahum yadxuluna jannata bi xayri xisaabi allahu akbar loolu kon tegtal na la melokaan xam ne jëf la juréy mu ni man sëñ baara mu bàyyi fi njabootam googu mm-hmm. dem tukki génn liggéeyal li rasulullahi mm-hmm. sallallahu alayhi samaaniya xijajin mm-hmm. samaaniya xijajin juróom-ñetti at yu manqué tuuti di tawte bëgg ku mu ndox du ko am di woor ba ngoon koor gi maa yomb juróomi at la fa sëñ bi def day woor ba ngoon dog jot doo am ko ko jox ndogu doo am xëdd xobi garab lay dagg su gi su jël ko naan ndox mi yàbbi garam mbaay di tatagal weer yaa xayra dayfin ataa bil wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi te amul ndogu amul xëdd mm. moom Seexul Xadiim moom bu kor mu bëgg a wari du am murum koor du ko jox waaye teew yaasal busharati bil ayati wa shuari ala nga xam ne amul ko ko jox bu julli it jotee mu ñëw ba ci boulevard bu yaatu taxaw doo gis ku koy gunge du gis ko wéttali bu kàbbaree ñuy reetaan ba daanu muy jàngal xuraan ñuy reetaan ba daanu bu jullee ba noppi ne woor naa julli naa aw ma ndogu aw ma xëdd waaye woor naa ba matal aw ma muurum koor bu ma ko amee it aw ma ku ma ko jox di bu ndawal di ko bëgg a mus du ko gis xaadimu rasul du am kenn ku mu yabal wala kenn ku mu hmm. moo tax melokaan wooyu mu fa nekkee wéet moom dong ci béréb yu yàgg béréb xam na ne Gabon nag ment am na ci yooyu bu la mattee da ngay nelaw te doo yeew mm-hmm. am na bant yooyu bu la jamee moo raw tooke te foofa tiiw la fay nekk mu yàgg-yàgg ma sa saalit ma sa yoqat ma sa daw ma sa dellu ginnaaw ma sa wax um, u ma sa wax kañ lay dellu waxtu wu nekk rek ma ngay gañaayu léegi-léegi mu topp tefes gi di jàng xasida yi léegi-léegi mu toog ci càppandaay ci béréb di bind waaye mel na moom képp moo fay nekk amul kenn ku wéttali cheikhul xadim garibun la daa jundi laida wa silaahuhu midaadulu Quraysh bi shukri loolu la Abdou Salim Abdoulaye Salim al-Hanbali wax. xalima mhm. ak daa rek la yow. xoolal def na ci géej gi ni mu nekkee maa yomba man nga ne def na fa juróomi at kenn xamul fu mu nekk. juróomi at yoo xam ne kenn xamul fu mu nekk ba tubaab yi mujj bind yónnee lettre fii ne Ahmadu Bamba génn na mooy keroog bi ñu ko tàbbalee seen bënn googe mu ne radama rabbiya maa ngi wi xafar li darari wa saanani an man kafar ba jàpp ne nekkatul adduna te fekk booba tubaab yi dañ koo gas suul ko moom ku tedd muy liggéey boo xam ne. pour faat ko pour faat ko. allahu akbar waxtu wu nekk. waaye li mu am na ni albaaxi alladi laysa yamut am na ni albaaxi alladi laysa yamut. billaahi wa kullu man qasada durri yumit yàlla mooy ki ma garanté kenn mënumaa lor man Cheikh Khadim. ku jublu ngir bëgg maa lor yàlla borom bi subhaanahu wa taala faagaagal la. kon loolu da nga cay déggee ne liggéey la bu diis bu yàgg te ne na ñett képp ko waraloon bëgg am ci yàlla dara jooju kawe ramu sama xeet. diirub jamono may xaadimu rasul boobu sëriñ Baara bi ñu ko bàyyi moom ñeenti at. boobu Cheikh Amadou Lamine Baara ci ñeenti at lay toll ndax Cheikh Baara Cheikh Amadou Lamine Baara. 90 mhm. 91 la feeñ jamono. 95 du ko weesu. allahu akbar mu nekk ci géej gi. waaye téewul la melokaan wa di yàgg-yàgg njaboot googu. Mhm. kenn ku ne gis nga ni mu mel ci alxuraan ak ni mu ni mu feese ak ni mu réyee Cheikh moom lañu Baara yegg na ci def ne gis naa ci yàlla bu loolu suñu bàyyi maam Thierno mii duñ am ay teggin duñ làmboo alxuraan duñ ko watt ci suñu waxtu ndaw. maam Thierno leen jàngal nga xam ne moo moo baaray Modou Lamine. Modou Lamine baara. sëñ baara yow yaay sunu mbër. murito baaray Modou Lamine. aw leen baaray Modou Lamine. Modou Lamine Mbacké jaraway baay murito baaray baaray Modou Lamine Modou Lamine Mbacké jaraway baay wax baaray Modou Lamine mami bas Mbàkke jaraway baay murito baaray Modou Lamine Modou Lamine Mbàkke jaraway magal leen sin baara baaray Modou Lamine